mbokki Sénégal mbokki diaspora bi yéen ñiy faral di seetaan télé bii nu jàkkaar lool muy Ndiassane TV ñu ngi ànd ak yéen tey di wax waxtaanu fàttaliku ci sunu kilifa ci sunu sëriñ ci sunu yaakaaru àddina ak àllaaxira gannaaw ba nu ubbi ko ci turu kii xalifaam tey di cheikh sidi ahmadul bekkaay ibnu cheikh al bekkaay ibnu cheikh abu mouhamad ibnu cheikh al bunama mi xalifatul am li tariqati al qadriya di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér mook mboolem rakkam yu tedd yi ak njabootu ahlul kunti yu ah kii nuy fàttaliku nag nekk kenn koo xamante ni ci góoru yàlla yi la bokk teel a ni jaamu yàlla la nangu woon ca azal te bi mu ñëwee ci kaw suuf lànkul moom boroom Njaasaan yow ma alastu keroog ñépp nangul sunu boroom bi nu ñëwee ci kaw suuf am na ñu wor moom nag mësta wor ndax rasulullahi mooy maamam mu doon ko it nag xar ku ko ni jàkk mu la waxee nga xam ni moo doon rasul sallallahu alayhi wa sallam ndono gi nag biko ci gëna ñor xamna ni bokk na ak moom deret xamna ni yonent bay mamam waaye nak mu donn ko ci jikko donn ko ci ragal yalla tek tankam fako mamam rasulullah tegon lo gis mu mengok sharia ak sunna xamal ni lolay borom jassan lu ko moy du mom lepp lo meuna wax yonent bi ta neewoko yalla nga dañ la koy accepteel ci mbaax lépp loo mën a wax boroom Njaasaan te neewoo ko yonent nga dañ la koy accepteel ci mbaax mu nekk ku dal nekk ku teey tàmbalee ko tiflan nag ca ba muy nekk ndaw juddu rek jub fa tabaarakallaahu waaye nag sax ci njub wane njub ku mu bokkal xam nga njubam ku mu xam ku mu jamonoon teelit xam nga njubam xam nga dëggoom xam nga mbaaxam loolu la ko yàlla defal mu nekk ku ubbiku xam nga fu mbaax ne jarul di laajte ba xam mbaax a ngi fi wala new fi fu mbaax ne rek dënd daf fa yaatu ku ubbeeku la woon waaye ku sàmm ndonoom la téye ko moom boroom Njaasaan seetlul ni mu ubbikoo jëm ci nawley diineem yi mu fi nekk jël doomam jox sëriñ Tuubaa xaadimul rasuul mu jox ko Cheikh Modou Moustapha mu am ca juróom-ñaari doom ca njaareem jël doomam jox ko Serigne Babacar Sy fa tabarakallahu foo mu ko dëkkaloon ca Tiwaawoon mu tudde ko Njaasaan toog te génn àddina yàlla nañu yàlla tas ci barkeem te yàlla yërëm ko muy Cheikh Sidil doomam ya mu am njaareem moom maam astu doomam yooyu dunduñu ñu fatat buntu ba Serigne Cheikh Mbacke gende Fatma jël soxna Ami Mbacke rakam jox ko Cheikh Seydil Hadji Mambu mu am ci muslimatu ak Cheikh Sidi amin ak Seyna bok seni rak fa tabarakallahu xolal yoyu xeti jàngale mu wane ko defu ko ci théorie de mais daf ko def ci pratique kenn ko xamanteni mom mo la mak yeureum na la kep ko xamanteni ya ko mak jox na la cieur ci bir askanam ak fudul askanam naga nekk rek kuy liggéey ci lislaam borom Ndiassane nii la dundee di donn mbaax nag ndax ñi mu donn yi kenn du ko laajte ci ñoom mbaax fa la dëppee minhum waliyun wa minhum muxsitun badalun wal xawsu minhum wa minhum xaayimu saxaari ñoo ñooy askanu kunta te ñoom la donn ñoom borom Ndiassane moom waliyu ci ñoom la nekk muxsit ci ñoom la nekk ñi baax ñëpp fa tabarakallahu budalaay ci ñoom la nekk masalan nekkal fii gis fi borom Ndiassane nga dem màkk gis fi borom Ndiassane ñooñu xe façon yooyu yu bari ci kunta lañu macha allah waaye nag bi ci gën a am solo bu ñëpp tëddee di nelaw mooy ña taxawoon màng guddi gi di ko naafi la ñooy jukkati njël yi borom Ndiassane lii la doon ci la mës a sax bi mu ñëwee sanc Ndiassane bi mu ñëwee lii ñuy tuddee internat su ma yeboo man la moo ko njëkk a def. cinq cent mètres la defar néeg bu nekk mu def ko ay néeg nag néeg bu nekk fukki ndongo di ca nekk kenn du boroom Ndiassane wut ñuy jàngale ba pare mooy ñëw di saytu seen alliwo ñuy jàng alquran daara ju civilisé ngir lan ba bu jot dina reyal ndongo yi nag reyal leen baabanjool yi bu ci nekk gétt la ci amoon nag ma wax la ko nagak xarak bëyëg gëleem ak lu mu doon rek gétt la ci amoon baa banjoole yi nag 500 mètres yi ma la wax amoon na beneen 500 mètres boo xamante ni carré noonu la ñu ko feesee ndax xam na ni mooy ndonoy maamam maam Cheikh Bouna Ama maamam moom la waroon jóge Algérie dem ci Màkka dem Madinatul Munawwara ñëwaat ñëpp di ko gis Ahmad Alawi wax na ko ca tawasulam ba ayaa saaxisal mawlaaka warxafu fi lladi yara fil faya fi fawqa daari qufaydadi bu ko jafee mu teral leen Euh, àllarba bu jot euh, te tool ya kenn du ca dem te wàccoo alquran bu njëkk ba ko yam ci njaasaan mën na laa gindi sa soxla ko yam ci moom mën na laa gindi da ngay ñëw jarul ngay àgg ci sëriñ bi loolu jàngale bu rëy la tëjoom it yii bokk ci woon waxtoom yépp ca jàkk ja la ko daan jullee bu ca jógee mi ngi ci boroomam daawul toog foo xamante ni dañu fay wax waxu mboosóor waaye su génnee rek nit ñi war ko su génnee rek xamal ni soxlay jaam ñee ko tax a génn loolu lu jar a bàyyi xel la waxuma soxlay taalibeem de déedéet su ñu nee borom Ndiassane génn na tey dangay gis Ndiassane fees dell fépp fu nekk nit jóge fa yàgg naa defal nit teraanga wala aajo bu la të jaaxal la ba nga mujj ni ko sëriñ bi dama bëggoon a jébbalu ci yow mu daan ni la yow am na ci ko nekk nekkal ci li nga nekk ma fasanteeg yow kóllëre ndax looloy lislaam fonk baat bi di laa ilaha illa allah bari na loo gis ci kayit ñu bind ko ñiy wax naan bind naag bindul loolu laa leen di wax nanu bàyyi xel ci diggante bind naag way na soo nee way de jotam mayu ko ko woon fa tabarakallahu daan na wax nag lu nu mën a nose ñu mel ni góor gi Mayib Ba góor gi Issa Ndiaye maam Amad Farimata Dia ak boroom xam-xam yooyu ko waroon ñu bind ko nas ko muy way waaye moom mbindam li tax kenn du ko weer ci biti mbindam day defar société dan na fekk nit koo xamante dafa jublu soobu ci yoonu yàlla di def suluk te xamu te bindum borom jasan aku gindi dan na fekk koo xamante ni yor na ismu tur wa nar koo jaaxal ci mbindum borom Njaasaan la gindi ko ci gàttal ma wax la lii tey nga yóbbaale ko ci Ndiassane TV bari na loo gis ñu ko boo ci gisee sirrul kunti rek xamal ni mbindum borom Ndiassane la li ci ëpp du ca def turam dafa jël yool ba delloo ko kunta kii mooy borom Njaasaan bi mu ñëwee ñi mu defar ci góor ñi fi nekkoon façon xeet yëpp ñu ngi woon Njaasaan waa kan moo daan interpréter nit ñi ak Muhammad fa ñu ko xañoon démb bi fa ñëwee am doole daa jéggale muy màkka fatxu màkka ñu ñëw ak dix mille deux mille tuub ñuy douze mille ñoo ñoo dem Xunayn am na lu fa xew pas-pas dañoo nekk di xeex premier song mi rek alquran nag la koy junju ci seen bariwaay ci Xunayn naagu war a am ndax badar tuuti lañu woon jëy sun hmm? xeex lu war a mat junni duma leen xam nga ni dogoo tax bi ñuy dem Xunayn nag su mënuma ko waxee naagu waaye ñu wax ci seen biir nii ñii tey duñu doy dees na leen duma foofu laa la bëgg a jàngalee pas-pas moom ñi mu yar da leen a yar ci pas-pas bi nu demee ba nga xamante ni sóobu nañu xeex bi rek ku ne xam na ni song mu njëkk ma xaw nañ ñoo sonal ba sallallahu alayhi wa sallam xam na ni Abbas baatam dafa kawe mu ni ko wool ma ahlu shajara Abbas moo jol la mbeeru ca kaw daal ni yaa ahlu shajara ñu ñëw taxaw ñooñu bi ñu ñëwee la ñu maîtriser waat xeex bi ba ñu duma yéefar yi kon lu tax ñooñu ñoo jaayante woon jaayante boobu la am ak ay taalibeem laqad radiyallahu anil muminina is yubayiwunaka taxta shajara ñi jaayanteeg suma turandoo benn minorité la buy jur majorité kenn ku ne mu yabal la fi bërëb foo gis gaar bi daan fa taxaw borom Ndiassane am na fa représentant waaye nanu xool kër yooya bu ca nekk représentant ba mu fa am turam moom la def ca kër ga waaye ca la mu leen nàmpale leer la keroog mu génne àddina le juillet lundi ma waxaat ko altine 13 juillet 1914 ca bis ba rek képp kuy ñëw ca mag ñooña te waroon nañu Sénégal wër ngër këpp ëndaale nga kayit ñëw indi kayit gi ni kii de moo ma ko mayoon waaye manit ci mbaaxam ci barkeem liggéey naa ba am ay kër kon sama ngor mayu ma ma téye lii maa ko mayaat njabootam kon mbaax googu ak yaatu dënn boobu da ko jëmbat ci ay taalibeem da ko jëmbat ci njabootam njabootu ruuxam nag ak njabootu dereetam borom Ndiassane kuy mbokk dereetam jokk na la borom Ndiassane kuy mbokk ruwam kuy mbokk ruwam jokk na la moom it njaboot yooyu la amoon ñaari njaboot xoolal ba mu demee ba tilimit di jëli ndénkaane ba ci Cheikh Sidi euh, ca Cheikh Sidi al Kabir sew-sew mi ngi foofu way juróom maam Cheikh Bun Ama dafa dem jaale ji Cheikh Murtada daanaka def na fa ñetti at ñetti at yooyu mu fa def bu ñu dee ni dafa dem rek jaale toog déedéet dafa doon régler benn situation bu am kër ga ku ne xam na ni Cheikh Sidi Mouhamad mooy xalifa Cheikh Sidi te mag ñi mu yor ñëpp ay kàngam lanu Baba Ahmata nga fa Zeynul Abidin ma nga fa mais ñu yéeme lool lool lool lool waaye jaayanteeg Cheikh Sidi Mouhamad pour ñëpp nangu ki ko indi mooy maam Cheikh ama daf ni na ñëpp képp ku toppoon Cheikh Sidi Moukhtar nanga nga jaayanteeg euh, Cheikh Sidi Mouhamed Cheikh Al ci la bokk Cheikh Sidi ku ne xam na mbiram moom teel naa jaayante waaye am na ñeneen ñu fa nekkoon te jaayante wuñu sabab boobu maam Cheikh bu naa maa tax foofa nag la dénkee mbóot ma Cheikh Sidi Mouhamed joxu ko Cheikh Sidi yee de Cheikh Sidi Mouhamed la ko jox Cheikh Sidi Mouhamed moo ko jox Cheikh Sidi ya ni ko borom dina ko jël si. loo tax mu am pas-pas bu toll ni ba mu ne jameet ñëw Cheikh Sidiya lépp loo xamante ni addiya bu taalibe war a defal sëriñam defal na ko borom Njaasaan bi mu ñëwee mu laaj ko ndénkaane bi seetlu rek la ko def daan ni ko ndax daa am lu ñu ma dénkoon mu ni ko boo ma joxee ndigal ma fekk fa mu nekk ma jël ko xam ngeen ni loolu ëpp na téere kooku mooy ndono lii kunta di doxal tarixa bi ku nekk xam na ni bu njëkk ba dañu ko daan donnante te xoolul askan bi kunta ñëwee seen pas-pas moo tax mu sax fi bi ci nekkee ba léegi benn yoon la mës a génn bi ci kunta duggee Cheikh Sidi Amar dugg ci ñii ni Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ñii ni da ko njukkalee papam ñu tuddee ko Bekkaayya waaye ba mu ci duggee ba tey génnaatu fi lu dul benn yoon mu dem ci Alioune Ibn Najib moo tax borom silsilatu zab daan ni fa haulayi kulluhum kanaata wa daaru lazwaata aw tawwaata bi mu leen di lim ñoom kuntey mu ni ñii ma la limal ñëpp ay kunta lañ seen kër nag mooy azawaat wala tawaat si waa Alioune annahu sharifun muy Alioune ibnu Najib moom la la bëgg a indil te bi ko Cheikh Sidi Lamine Zine niqaab gis nga gis nga kunta dañoo bari dàkkantal seen maam jooju Cheikh Sidi Lamine Zine niqaab manaqib yaa tax ku yéeme woon la bi mu ko koy jox daf daan ni ko dafa laaj coono borom nag bu ko waree jël si dina ko jël si Cheikh Moutar bi mu nee tël rek kër <laughs> Alioune ibnu Najib xam nañ ni mbiram lay jël si. wax na ko ci waxin yu bare bare bare bare bare moom Cheikh Sidi Muxtaar ci jàngaleem balaa ngaa mën dara da ngay am pas-pas bi balaa ngaa donn dara da ngay am pas-pas bi bi mu ñëwee rek xam ne ni yëfam la dellusi woon fi loolu laa bëgga wax ni jom jooju ngor googu ci la borom Njaasaan sax te nag mujjewul puso bi mu réer loola daal la def ba ñëw nag sañ ci dëkkam bii di Njaasaan organiser ko nag yaatal dund fi ci jom ci ngor ci fulla ci diine te booba ba tey ndono li ci demam laa la koy wax pour nga xam ni moom la mu nekk lu mu wóolu la te pas-pas la ko doxale dafa ñëw rek ci gàttal ginnaaw bi mu fi organiser lii mu fi organiser fa tabarakallahu indi siyaani Ndiassane te day xam jamono dafa nekk nit ku xam jamono maa la ko wax ku organiser la woon moom borom Ndiassane bi nga xamante ni ndox mi ñëw na wax na leen ni ginnaaw juróom-ñett fukki at ndox mi dina dellu ndax sababa taxoon ndox mi ñëw ginnaaw juróom-ñett fukki at ci la ndox mi dellu ci la ñu mën a xam nan la ñuy amee forage ci la ñu mën a xam ay robinet yu ni moo tax borom Ndiassane ku yéeme la dafa fekk ni béy euh, euh, lu ca uude wax ñu ni der baa tax waaye day lii may wax waxuma ko ci waxu jay su ngeen gisee lii may def xam leen ni jàngaleem la mësumaa xatal fu ma dem rek lislaam lay wane su ma ñëwee wane ñëpp ba noppi door a ñëw ci moom ndax moom mooy mbaax mbaax nag boo ko amee dangay nangul képp ku baax moo tax mu am ko fonkoon baatu hayla la la muy laa ilaha illallah dafa xam ban poids lay peser dinaa la ci wax benn mbir baatu laa ilaha illallah borom njaasaan ku ko fonk la moo tax mu wax ci bokk na ci waxam ya mu wax loola ñu bind ko man qaala laa ilaha illallah fakkun lahu awnan nee na koo dégg mu wax baatu laa ilaha illallah rek nekkal ndimbalam gàddul ko sax ay bagaasam bila stixzaan nag sans condition yow li la intéressé moy bat bi nga xamanteni mom la wax muy la ilaha illa allah dinaa di wax ni bat bi mom dafa xam ban poids lay peser yàlla ko ko may amna ben sariya dina len di wax ni sariya bokul ak hazwa moy guerre bo xamni rasulullah dafa yable mu yabal usama ibn Zayd moy mooy ibn al xibbi soppe domi soppe Zayd ibnu Haarisa ko jur Usaama dem ñëw dem gañe ko ba pare ñëw di expliquer sallallahu alayhi wa sallam nan la ger ba mel ni ko dama leen a bett nanu Xaalid ibnu Walid bettee woon ca Uhud bi ma ñëwee ñu daw ma tëral ci ñoom lu bari jàpp leen di leen duma sallallahu alayhi wa sallam ma ngay muuñ mu daal ni ko ba am benn waay boo xamante ni dama ko jub seeg sama jaasi rek mu tàllal loxo yi daal ni laa ilaha illa allah muhammada rasulullah ma ñëw rek nag dagg bopp beeg baat bi sallallahu alayhi wa sallam ni tekk di ko xool ni ko da nga koo rey fekk muy wax laa ilaha illa allah usaama nee na ma ni na sax nee na ma mu ni ma ni ko li tax ma def ko mooy gëmu ko mu ni ma da ngaa xar xolam ngir xam gëm na ko wala gëmu ko usaama nee na ma gën a jaaxle nee na mu ni ñokket ni ma bu yowmal qiyaame di nga xam nan ngay def ak laa ilaha illa sallallahu alayhi wa sallam tey ñu jànge ci jaasi ja ñuy dagge ku bokk ba baatu laa ilaha illa jaasi ja bàyyi nañ ko bu ma yeboo ma wax waaye léegi jaasi làmmiñ la ñuy daggee gor yi ñi wax laa ilaha illa allah xoolal importance boobu Usaama nee na si naa Ali mës naa am ci lum ma soxlaa ma ni ko xam naa ni yaa nekk ci dëgg de waaye man lii dama ko dund yonent bi wax ak man sama jasi ji dal duma ci dagati bop ku wax la ilaha illallah mu xam njariñal bat bi def def na ci lu yeme sax mom borom jassat ci batu la ilaha illallah bobu yit bok na ci secret yi jëfëndiko bisu aljuma foko gis xamal ni moko ko bind yalla nañ ko yalla fayal bi mu demee nak ba yalla dogal xamal ko bisam bi muy waaj muy le 13 juillet ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp le 13 juillet ci la woolu maam Cheikh al Bekkaay woolu rakkam ya ndeysaan ñu ñëw nag mu daat ni leen Bekkaay na nga uuf say rakk yërëm leen nanu nangoo topp ci yow na ngeen ànd nekk benn na ngeen di yëkkateendoo di tegandoo bu kenn dugg ci seen diggante lu ngeen di def na ngeen jiital lislaam sax leen ci téere yàlla bi ak sunna sama maam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngeen bëggante lii su amee na ngeen xam ni barke bu nu yësal laa ku fi toog ba dem kii ñëw dina tax ñu fàtte ko ngir ku fi toog man la loo tax Cheikh la Lamin mu baax ma daan wax ni adénga ah, ko maanaam fii ma toog mbaam sax bu fi toogee ñu sol ko xilaafa goo xamante ni borom moo koy contrôler ah yàlla may na ko boroom njaasaan boobaak léegi yaa ngi gis njaasaan di njaasaan ku ñëw rek nekk borom njaasaan mu sotti kon nag yàlla nañ ko yàlla fayal maa ngi woo ñëpp ci ñu nekk benn maa ngi woo ñëpp ci ñu bëggante ay jullit dañuy bëggante dañuy mel ni brique ni ko lislaam waxee ci baatu sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ni ñu taqaloo ni ay brique di taqaloo noonu la jullit di mel ak moroomam ma dellu wax beneen kàddoom muy sa nga mënta mat mukk lu mooy li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokkum jullit lii ndokkeel la woon ci bis bi ñu jëm muy le 13 juillet lundi 13 juillet 1914 bi borom Njaasaan génne àddina ak tey ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na nu yàlla taas ci barkeem yàlla na nu nangul sunug taalibe loolu rekk la amoon lu ma ci liifantu lu ci baax mbaaxam la lu ci bon man mii doon wax man maa matul di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni ngeen abone ci njaasaan TV waaye ndénkaane la maam Cheikh Bouna maa ngi ko joxoon Cheikh Sidi Mouhamad mi xalifa Cheikh Sidi Mukhtar mu jox ko Cheikh Sidi ni ko lii ndonay kunta la ki ko war yor su jotee dina ko jël sil boppam keroog la borom njaasaan dem butlimiit fekki Cheikh Sidiya naka la ñëw mu koy teral ni taalube di terale